coowal suuf moo judduwaat ci Touba njaaram alom ga dox ci diggante kenn ci sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yi di Serigne Fallou Baye mu Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar ak ka ñu dénk bërëb boobee di Thierno njaay penc mi nga xam ne moo fi nekk di réservé bi moom la chef de dagg jaay ko fas yéene ko def ay kër ku ñuy wax Thierno Ndiaye moom moo def loolu li waral woote bi nag bi mu defee loolu. ki mu ko jaay indi fi suuf fas yéene mool ngir fas yéene tabax te it fii béréb la boo xam ne nekkul béréb boo xamante ne béréb bu ñuy war a joxe ay kër la di ko jaay loolu nag la taxaw gàntal loolu ngir du am. am na problème boo xam ne nag bu amee faw ñi nga xam ne ñoo fi nekkal Serigne Touba yëg ko ndax liggéey lay doon boo xam ne nii bu amee gàllankoor euh, dana jafe lijjanti. ndax koñ bi xam nga ni bu fekkee ne war nañoo am nañ jafe-jafe amuñu yaakaar yi dem faje ji ko fenn wala dem disi ko kenn ku ah, ki fi nekkal Serigne Touba wala ki fi nekk waa mbaa koo xam ne ni Serigne Touba defar na ko bàyyi ko fi ak njabootam nekk fi. la ko sabab seenam penc la ñu ne ñeenti kër lañu ca dagg tàmbali koo jaay loolu nag tax na sëriñ beeg taalibe yi ñoom ñëpp dajaloo ne nag jamono ji loolee du fa amee. li ñu fi jëkkoon a def loolu yàgg na ndax. su ma juumul 2008 la woon ba léegi te jamono bi nga xamante ne ñoom defoon nañ loolu ba nga xam ne sëriñ bi jot na ci woo Cerno mi nga xam ne moom mooy seef de quartier bi waxtaan ci ak moom xamal ko ni ko lii ab reserver la nekkul lu ñu war a dagg ay di ko jaay Cerno dafa gàntal waxi sëriñ bi sëriñ bi it nekk ko amuk daal daal ko fi bàyyi dem ci alaaji baara mi nga xam ne ci yooyu jamono moo fi nekkal sëriñ Touba bi ko waxee alaaji baaraam sëñ Fallou alaaji baara laaj ko ndax am nga numéro Thierno moo def loola mu ne ko am naa ko mu laaj ko numéro bi mu jox ko ko ko joxee numéro bi mu woo Thierno ne ko na ñëw wuy si ko Thierno ñëw wuy si alaaji baara bi mu ñëwee wuy si alaaji baara nag alaaji baara ne ko sëñ fàllu mii kat dafee ñëw nee na réserve bi nekk bunt këram ca pénc mooma da ngeen ko dagg ay kër di ko jaay ne maa leen ko sant te loolu santuma leen ko mu génne ay kayit di ko won alaaji baara bi mu di ko won alaaji baara alaaji baara ko ne ay kayit waxuma ko ndax lii yéen a gone yéen a koy def ak bëkk néegi di sàcc sama signature bi sama tampon bi sama kaase bi di ko di ko def di wax ne maa leen jox ndigal te defuma ko penc moomee laa bëgg nga bàyyi ko fa ak ña fa dëkk lu mujj tey bu fa sa tànk jamati Cerno bàyyi ba génn moo sëriñ bi jóge foofa mu ne sëriñ bi léegi dama bëggoon ñu waxtaan ñaari tere yi nga xam ne moo féetee sa kër buñ ko xaajee ñu bàyyee la ñaar yooya te ñaar yi nga xam ne moo féete su wetu sowu ga nga bàyyee ma ko sëriñ bi nag ne loolu duma ko def ndax kat lii nga xam ne dama koy xeex askan wa fa dëkk moo tax ma di ko xeex waaye du sama coobaree bopp te yooyu jamono mu xam ne la mu bëggoon mënta nekk daa daal di bàyyi lépp. ci ñeenti kër yooyu nga xam ne jotoon nañu ko dagg jaay ñaar ña sax dombali woon nañoo tabax waaye nag gannaaw loole ndigal lañu jot ci sëriñ ba taalibe yi daal di màbbal lépp lu ñu fa tabaxoon mu nekk nag mbir moo xam ne jamono ji fitna mën na cee yow ba tax na ñeent ci njaboot gi yëkkati kàddu yi balaa làmbaay fa la jaar ba yegg si fi ñu toll ndax Serigne Cheikh Jëmb Fall mi xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall jot na ci sëriñ Talla Fall mi ab xalifa moom kër Serigne Abdoulaye Fall Ndar jot na ci jour bi ñu fi sotee suuf see ci àllarba ba alxames bi dem nan ci Serigne taxa fekk euh, mu fatu ñu dem Serigne Cheikh Abdou Latif yegge mbir mi. xamal ko ne ko nag fu lu ci sëriñ bi war a yëg na ko ci yëg ba mu ne woon bépp intervention boo xam ne war na ko ci def ba sëriñ bi yëg ko dina ko def moo xamal ko ne ko nag euh, mbir la moo xam ne nii yàgg na jib waaw te it comme que yéen yéenee kilifa yéen a ko war a lijjanti su ngeen xaaree ba wal mi egg ca montagne ma dina gën a indi ay jafe-jafe ndax euh, fii moom du masa nangu alaa kulli ñu koy daggee kër waaw te it bañun ci dara nag te wax nan na ko nag fitna mën na fee yeewoo hmm. waaw te wattaqu fitnatan laa tusibanna allaziina zalamu minkum xaassatan ay moom du yem ci bopp boroom réserve moom yéen jàng sax xam ngeen ne la may réserve place publique ñëpp a ko bokk te dama lay wax lotissement bi sëñ Saliou def bi sëñ Saliou def amul benn loo boo xam ne nii ñeenti kër amul 6 8 toppal lotissement bi yëpp li Touba lépp ba nga dem saxaw ga ñeenti kër amu si juróom-benn kër juróom-ñett moo nekk lotissement bi plan bi man dama gis ma ngi si Thierno Ndiaye ma nga fa sa appart boo tapé maps boo demee si Google maps nga tapé nga def héliport da lay génneel boo ko toppee boo ñëwee fii da nga gis bi day feeñ kon loolu ay yeneen canal la Cheikh Thierno ak lobby yi mu àndat premier lobby muy Xaban Fall ndax mooy suñu délégué quartier dëkk si koñ bi mu moon war di xeexal li ñuy xeex mais moom moo ñëw di signaler fii ngir intérêt personnel intérêt personnel mais dina coûte cher parce que moom da dèjà dikk na da dàq nañ ko loolu mooy gàcce ña si ña fa délégué quartier ba dàq la amul kenn koy remercier loolu gàcce la ñoom ñoo ñooy sax day fi toll nii nee ñu mbir mi jaral na leen seen bakkan seen penc moomee nga xam ne nee nañu sëriñ Baara Mbàkke moo leen ko joxoon di kenn ci njabootuk sëriñ Fàllu ñuy yëglu ngir kilifa diine yi dégg leen ci seen suuf soosé nga xam ne jàpp nañu ne dañu ko bëgg fuqati ci seeni loxo nekk ñu nekk ci koñ bi dañoo am problème bu yaatu boo xam ne nii loolu euh, jar na kilifa yi ko war a yëg ñëpp te nekkal fi sëriñ Touba te yi tey sëriñ ji ñor leen ñu yëg ko umpale woon ni Serigne Touba euh, ku ko fi nekkal di doomam wala ngay sëtam ak seex yi nga xam ne ñoo fi nekk wër ko euh, gox ba nga nekk yaa fa war a taxawu Serigne Touba te njaboot ga fa nekk ba na loolu ku ne xam na ni euh, ku bokk ci Cheikh Rama fa nga nekk yaa war a taxawu njaboot ga. nuy wax ne man de moom Thierno bu mu ñëwee fii ànd ak ay ni dagg fii dama ne ko fii du mu ko dagg mu mel dama ci am digal ma ne ko ah digal di mu génn benn papier wan ma. papier bi ko liiree mu nekk dérivation bu kër Abdoulaye Wade ma ne ko ne kii dérivation bu kër Abdoulaye Wade la mu ne noo kon damaa jaaw daal di génn benn acte de vente ma ne ko lii acte de vente la lii mu ànd ak benn benn waay moo ko bu ñu ko ma xaw ma ma ne ko sëñ bi fii ay affaire espèce de poche ñëw fi fii inspection li ñu wax espèce de ñëw fi nañ fi wax la comme que espèce de poison yaa war a gën a xartu bu ñu dagg lii ñu di ko xeex di ko xeex ba dem si jàll boobu jàll moo ne commandant yàlla nanu lii ngeen def day day dëkk tubaab mais bu ñu boo xam ne ñun am nañ sañ-sañ xam ni ñu si doxee mais topp leen ko xam nga suñ suñ kàddu fa war a mën a yem sëñ bi si mbaaxam demoon ba sëñ baara toog sëñ baara sëñ baara wax la mu ko wax mu ñëw bi mu ñëwee daana sëñ bi kat nee si kenn def dara ba léegi 2008 ba ba 2021 ñaata at la 13 ans kenn defaatu fi dara mais lu waral bu 13 ans yi kenn defaatu fi dara xanaa ñi moom ñoom bala nga ko fàtte waaye ñaari pàcc yi des xanaa mu ñuy borom an seen i borom kenn musul lekk seen i borom fu ne kon ay kanaa ngi si biir Thierno xam naa ko bu baax day dagg terrain ñaari terrain yi moom la benn bi sëñ bi beneen bi lóobi ñu fi nekkal. dégg ngeen ci kàddu mu ni génn fi fii euh, yaram nekkatu ci set na ci. léegi ñi nga xam ne ñoo ko jaayoon ak ñoo ko gëndoon ñoo ngi nañu ko ligganti en tan que koo xam ne dañ ne la yaay yilif ginnaaw génn na ci nag ñun duñ jàpp ne génn na ci ndax yàgg na koo def ba pare du ci génn dana doxaat ci suuf jaxase njaboot gi nga xam ne ñoo ne ci suuf loolu nag xamaguma am na xamaguma amut waaye maa ngi lay maa ngi xamal njabootu koñ bi ne loolu bu fekkante ni nar na ko nañu yeew bu baax a baax xam ni def na ko bul bul benn yoon bu ñaari yoon fi mu ko jot a def yëpp nag jaxasoo nañ ba féewaloon nekk ñaari baat loolu nag yàlla na ci yàlla musal ndax bu amee du doon jàmmi bi ndax ndax jàmmi sëñ bi mooy koñ bi nekk benn jàmmoo ndax loolu mooy yitteem. nee na am na ay jafe-jafe yoo xam ne itam. mën na leen ko indil ci wàllug dëkkuwaay bu amee. ci biir loolu itam ndekete ñu ngi dox ci suuf ñoom di ko jaay ba gis nga kiñ ko mujjee jaay nii moo fi sotti jalo suuf bi kay gis noonu fi ñeenti terrain la woon waaye ñaar yi moom leer nañ ne jaay nañ ko moom ba noppi muy ñaar yi nga xam ne moo nekkoon pant yi. te sëriñ bi joxe woon ndigal ñu ko léegi nag bi mu sottee suuf si nag ci la sëriñ bi wax Fallou Gueye ne ko nag comme ñii dañoo demoon ci alaaji baara wax ak moom ba alaaji baara waxoon ne nañ fi bàyyi penc mi ñu ba ko fi ñu jàpp ne ba nañ fi te ñoom bàyyiwuñ kon ñu ngi dem di jaay léegi pant yi nga xam ne moo fi moom lañ fi jotoon waxal taalibe yi ne leen bu ñu xëyee suba nañ fi ñëw ci la mu Fallou Gueye woo ma woo mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo bokk sëriñ bi te ne féete Touba ak ñi nga xam ne ñooy waakoñ koñ bi ñu daje fi bañ fi dajee nag sëriñ bi joxe ndigal ne ginnaaw demee na noonu ñu ngi doon wax ñoom ñu jàpp ne banañ te bawu na pant yi ñu fi joteef nañ ko dindi ci la sëriñ bi joxe ndigal li nag ñu daal di dindi pant yooyu koñ bi nag ak euh, gox bi nga xam ne nag mooy Touba Ndiarème ak féewaloo am na ci goo xam ne nii gox euh, gox boo ci dem buñ la waxee dëgg euh, danañ la leeral féewaloo gu yaatu goo xam ne am na fi ndax moo waral sax féewaloo gi ndax dem na ba nga xam ne am na ci gox boo fa duggee boo xoolee seen seen situation day mel ni sax bokkuñu diine wala bokkuñu euh, Sëñ Tuubaa ndax am na ñoo xam ne duñ bokk sax benn jullikaay la ko waral mooy dañuy dagg réservé di ko jaay te di woo ko am mbàkke mbàkke ah wala leneen te mosuñoo dox ba fekk benn mbàkke mbàkke dëkk ci ab réservé. li nga xam ne mooy bëgg-bëggu sëriñ bi di bëgg-bëggu askan wi ndax Tuubaa gi ñu dëkk nii. kenn ku nekk xam na Touba ni muy màggee ndax euh, soo xoolee dëkk bi at bu nekk ni dëkk bi di yokkoo jéggi na dayo te xew-xew diine yi fi am bëri na lool macha allah te it ay mbooloo ñoo fi daje léegi dëkk bi bu ñu jëlee réservé yi dagg leen ay kër joxe leen ndax ñun diiti nañ am benn espace boo xamante ne dinañ mën a am benn air buy dugg ci biir dëkk bi bu xew-xewu diine yooyu day am wala ndax ñun bépp xew-xewu diine bu ñu war a am bu am ñu war ko amal dinañ am benn béréb boo xam ne dañ ko fa mën a amale. en 2008 Sénégal mi ngi doonoon ay 8 millions d' habitants fi ne nii ñu ngi ci 16 millions bu ñu calculer fii ak ay cinquante ans ci kanam population bi dina yokk yokk koo xam ne nii bu na mut fu ñu def hôpital fun jëm bu na mut def forage fu jëm fii ndox mi ni mu demee ci dëkk bi ku ne gis na ko léeg-léeg mu am léeg-léeg mu ñàkk nga xam ne kër goo fi dugg boo mut ab bassin mu ngi rootaane ci ay moroomam. te loolu lépp suuraale wuñ bu ñu demee ak fii ak juróom fukki at ca kanam. li nga car man li ma koy mooy nit day wut honneur nit ku baax bu nu falee da nga wut honneur honneur mooy li xam ni bu ëllëgee sax njaboot dañ lii ko sama bàyyi ko fi dem fi toogee mais ñun waa alam gi di wax dëgg yàlla man dama personne dama part gisuguma luñ ca defal du courant du ndox ba mu fi toogee ba léegi du mètre ndox du courant. suñ ne moom allah kulli la ma ko waxoon kenn du ko dagg baa boog suñ mënta xaay jox kayit bu leer nañ suñu kër sax bu suñu mën ndaxaale nañ ko joxe bu suwaan dellu fa jóge mais keneen ku xam may nag moom nii personne ku suñu mën ndaxaa ndigaleem rek mbind baa mu wax nu dégg ñu joxe leen saa bu sa miñee ne baleen barke sëñ Bamba suñu kër sax bu ne baleen joxe ko génn génn dëkk bi Thierno Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu dénk foofee ñu tudd ko ci ne nag fan yile dina indi ay kàddu yu leeral ci lu mbir mu ni mel waaye laata loolee dënn ya ma ngay gën a jóg foofee ca Touba Njaarim alom ga